هق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالهلاوات يا لهف نفسي على فرض الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العشي بوجد والخدوات كانوا bismillah assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, ñoo nuyu di santi nyep. mbokk yi ma taxawal nag muy waa alxadimiya dañoo dajeeg man rek bëgg ay kàddu yi seede ci sëriñ bi lool nak dañ cee tuti lool dañ noo rek ñu wax dara Cheikh abdullah Ahad ni ma wax ci eh, man tuuti naa ci waaye xañ na ma wax ci dara loo xam ni jombul keneen ku ma gën a xam bu ko déggee dina ko jubu donte kooka mën na ci yokk dara gën ma koo xam sëriñ bii day euh, ku euh, néew ci ay nattu ngoom la ñi mu maaseel jamono ku ci wéet la ay melokaanam wéet na ci ñi mu maaseel jamono ci euh, matal lislaamam sëkk Euh, bëgg Serigne Touba ba fa mu yem euh, Serigne Touba moom la yemalewulug dara te bëgg Serigne Touba googu li muy kawe kawe kawe ci moom nga xam ne mosay su gis man de sama bët musta tege ci ku mel ni moom ci bëgg Serigne Touba waaye li muy kawe kawe euh, da ko laloon xam-xamu charia da ko laloon bëgg gi da ko tegoon ci xam-xam xam-xamu charia nga xam ni lépp lu muy def da koy natt ci àndaare charia ni ko Serigne Touba bëgge mën naa ni ni sëriñ Touba defoon ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci mbëggeel waaye mbëggeel gi li muy kawe kawe ci seen diggante lépp lu muy def da koy natt ci li ko yàlla yónni muy kitaab ak li ko yàlla jagleel muy sunna ñaari àndaar yooyu la yonante bi natte léppam la Serigne Touba natte léppam ci yonante bi moom mooy kitaab ak sunna moom it noonu la doon def bëgg gi mu bëgg Serigne Touba daal lépp da koo natt ci charia dara génn ci euh, alquran ak sunna te ndigali Serigne Touba yi fedd li ñaar yooyu euh, mu meloon mu nekkoon koo xam ne nag euh, yërmande bare le na ko lool dafa mel ni da ko donne ci turandoo muy Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam loolu daal xam nañ ko ci moom yàlla defal nu tawfiq nag yal na yàlla yokk tawfiq yi ci ñun ak ci yéen. mu yaral nu boppam ci loxo boppam nu yàgg lool ndax euh, nekk nañu ci xilaafak ak Cheikh Abdoul Ahad mu nekk tànk mu fonk ma lool bëgg ma lool moom mooy sama sëriñ taf ma ci boppam euh, di ma jëfloo may jëf mu di ma gindi may ma jaar fi may joxoñ ma xam loolu ci moom kon bu dee bëgg sëriñ tubaa ba fa bëgg yam xam naa ko bu dee tënku ci charia ba fa tënku yam xam naa ko bu fekkee sàmm la ba fa sàmm yam xam naa ko ci moom su dee e, e, jikko yi ci des yëpp di yaatu xam naa ko ci moom bëgg doomu aadama te yàlla rek tax te di ko dimbali xam naa ko ci moom mën a muñ ba fa muñ yem xam naa ko ci moom tabe mosoo si mosee su la gis ku mel ni moom kon jikko yooyu yëpp nga xam ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëmoon te sëriñ tubaal làmboo ko lépp li ñu xam ci borom nit ku baax daal xameef na ko ci moom mu nekkoon koo xam ne nag Euh, dafa bokk ak ñëpp ñu baax euh, di sëtub Serigne Touba xaqan ndax sëtub Mame Mor Diarra la ku ne xam na ni Mame jaara euh, loolu sax jërul wax ndax ñu bari xam nañ ko mooy moo féete ci mbokk sëriñ bi ci wàllug mag ci mbokk waaye sëtub Mame jaara Diarra ndax waajuróomu jigéen doomi Mame Mor Diarra la nekkaat it doomi Serigne Alaaji Fàllu Mbakke radiyallahu taala anhum ajmain ndax bàyyam sëñ Ahmadu Afiya Ñang ni Serigne tubaa defar mook soxna Serigne Fallou Mbacké ñoo bokk soxna Awa Bousso kon sëriñ Fallou ko yar ci loxol boppam euh, mu liggéeyal sëriñ Fallou ba Serigne Fallou làqu euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jël ko def ko loxol ndajooram mu nekk moom di def euh, ay ndigalam yëpp yi ko daan sant yoraloon ko lu bari ci xilaafa gi mu tegoon ko ci loxoom mu di ko lijjant digganteem ak këri diine yi digganteem ak Euh, ñi fi nekkal nguur gi muy état yi fi jaar digganteem ak mbokki taalibe yi lépp ci loxoom la ko tegoon mu lijjantee ko lijjantin woo xam ni kenn su ko gis ci rafetaay euh, naka noonu Cheikh Abdoul Khadir it euh, defoon na ko noonu bi mu agsee donte Cheikh Abdoul Khadir yàggu fi waaye fa ko Cheikh Abdoul Ahad tegoon la ko teg Cheikh Salihu noonu Cheikh Salihu moom dajee amoon cir boo xam ni dafa yéeme dañoo wax ne bi mu nekkee gone ci njaareem di jàng la ko Cheikh Salihu gis xemmeem ko lool ba mujj mu ñaan ko waajuram euh, waajuram may ko ko nga xam ne yàgg nañu Cheikh Souhaïbou bu Mbàkke noonu la meloon ci moom euh, euh, lépp lu mus a xew ci digganteem ak dëkk bi lu ci baree bari day da koy seq ak bu Mbàkke nga xam ne umpale wuñ ci wet gu ne kon daal njabootu ak Serigne Touba gi nga xam ne moom la ñu xamoon ñu nekk fi dale ci Cheikh El Hadj El Hadj Mouhamadou Fadil ba ci Cheikh Cheikh Salihou Mbàkke jaar ci Cheikh Mouhamadul Mourtada kenn ku nekk da koo def sa doom danga nga koo def sa doomi bopp teg ko foo xam ni kawe ga yéeme na te loolu ñu fekkee ko seere ko mu ca jikko yooyu ma waxit làmboo na ko ñu looloo leen looloo ko looloo leen waaroon ci moom donte ay mooy seen doom waaye euh, jikko yi dafa rafetoon bi nga xamee ni yàlla wàcc na xilaafa gi ci sët yi tamit euh, muy Cheikh Mouhamadul Amin Baara ak Cheikh Serigne euh, Sidil Muxtaar Mbakke Euh, ñoom ñëpp fa radiyallahu taala anhum ajmain noonu lañ ko jàppe woon def ko mag di ko di ko di ko nemmiku si wala ñi nga xam ne ñoo ko ci mag def ko rakk di ko nemmiku si ndax daa mujj euh, lu bëree bëri euh, doxatu ko ndax mag gi ñu bàyyi ko ci kër gi fii waaye ñoom ñëpp dañ fi daan ñëw sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad dafay ñëw Cheikh Mountakha yu gëju fi sax moom at yi mujj yi rek ñëw na fi seet si ko ànd ak moom ci néegam ñaanal ko defal ko lépp kon noonu la mel ak moom Cheikh Mountakha ni mu mel moom kenn xamul nu mel ci soppante ak bëggante ak ni ko Cheikh Mountakha wooloo kon noonu la mel ak njabootu Serigne Touba gépp ak taalibe nag moom bu fekkee ni dañu koy wër ak di ko roy moom mooy royuwaay wu mag bi ci ak taalibe loolu moo wax yëpp ci ak mbok ak xam-xam ak tënku ci charia lépp da koo def waaye ak taalibe ko lal amul kenn ku sant mbake musuma ànd ak moom ñu ñu diw mbake la mu nuyu ko te néew ko sama sang baat boobu la daan jëfandikoo ko mu gis mu sant Mbàkke rek loolu la koy wax te ñi sant Mbàkke ñëpp bari na ci ñoo xam ne moo leen gën a sës ci Serigne Touba fopp ndax sëtub Serigne Touba bu sës ci moom la waaye gëm Serigne tubaa ak bëgg ko te xam ne lu laal ci Serigne tubaa euh, amul moroom loola taxoon mu mel noonu euh, mu nekkoon koo xam ni tamit ñëpp dañ ko wóolu woon ñëpp ginnaaw bi ko sang yooyu wóoloo ku ko xam da nga ko wóolu moo tax ñu baree bari ñi nga xam ne ay taalibe lañu ak i wëllëre nangu woon a yëkkati seen njabooti bopp teg ko ci loxoom man mii ci kenn laa ci ñooñu te ku ñu ko jox la muy def ci moom mooy li muy def ci doomi boppam da nga naan sax kiñ ko jox ci boppam nga xam ne moo bokk ak moom moo bokk nekk ak moom te du doomam du jarbaatam wala moom lay tollool la muy def ci moom day ëpp la muy def ci doomi boppam euh, te loola la mu wax la mu la mu nekkee la cay jiital mooy du jël kenn di ko def loolu lenn lu dul jàng te njàng mi alxuraanul karim moo ci jiitu bu dee gone dana ko jàngaloo alxuraan ba fa mu mën a yem bu mënee mokkal baax na su munta mokkal la ko ci yàlla sédd mu jël ko dugal ko ci daaree xam-xam yi mu jàng xam-xam ba dañu réer xam faratay jëmmam du ànd ak mukk kuy réer koo xam ne àggoo ci jàng fa mu bëgg daal yàllaa ko dogal waaye loolu xam-xam képp moo ko ñoroon amul kenn ku muy yar ci këram ba ci soxna yu tedd yi nga xam ne ay doomam lañu kenn ku nekk boo matee dem daara rek da lay dugal ci daara nga jàng ba fa nga mën a yem bu dee góor ñi moom macha allah ñoom ñëpp Cheikh Abdou Lahad mën naa seere loolu ku mu yar rek doomam jarbaatam taalibeem boo ko nangoo déggal xam-xam képp ngay liggéey ci ngay xëy di ci gont kon nit ku mel noonu la woon euh, ci li ñu xam euh, xañ na wax ji day gudd jàllale te loolu du nekk lu gën waaye li ma la wax di nga jombul di nga daje keneen koo xam ni moom may gën a xam ci moom euh, lu bari wala mu gën maa dàq wax ci moom wax lu ëpp lii wala lu gën a yaatu lii wala lu gën a rafet lii ñoo ngi jéggalu dale ci rakkam yi nga xam ne ñoo bokk maam Afe Ñang bokk maam maam Fallu maam sax Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke bokk Serigne tubaab maa ngi leen koy siyaare di ko siyaare njabootu boppam gi nga xam ne ay doomi boppam lañu di ci jiital soxna maam Awa Ñang mi nga xam ne Serigne Fallum Change bu moo ko yoree ak njabootam di ci teg Serigne Fallu Ñang mi nga xam ne mooy xalifaam bu moo mag ci góor ñi ak i rakkam ñoo ngi leen koy siyaare di ñaan ni yàlla na xippee firdawsil aala في أعلى عليينا وفي الفردوس الأعلى تيالا ماي ني توفيق ني ياغ كو تيولك غينام تيالا نيالا يالا بولك موم ألك ني دك اك موم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاسم هد من نفس دون